maa ngi lay fay. Euh, tur bi naka la. Hamdou Ndiaye. Abdou loo bokk ak Paa bu Cissé. Paa ñoo bokk deret ñoo bokk kër ñoo tëddandoo vingt ans. Mhm. ami d'enfance ba tey. ami d'enfance ba uh-huh. ah, tey waaw. tey soxna pour deuxième fois tey lan ngay wax ci bis bi. waa bis bi di ko rafetlu rek jël soxna moom foo ko déggee xamal ne loolu lu rafet la tey jii di ko ñaanal yàlla yàlla jubóole leen rek. ci sëy bi incha allah. looy sama soxna di ko félicité rek di ko félicité di ko ñaanal yàlla tamit li mu séentu tey jii ci sëy bi yàlla defal ko ko waaw may ko ci ay tuut tànk yu bari defal ko jàmm. Mhm. waaw. mais ci la gis nga waa dëgg la gis nga li bi doon koor la sax mais xam naa ne bu nekkul woon koor moom tey jii fii waa koñ bi xam naa dañuy xëy après di leen baalu waax mhm. ndax waa Pikine moom buñ ñu moom. mooy loolu ñoo bëri bruit. donc la hmm. pikinité quoi. waaw à la pikinité. tey message boo leen jox ñoom ñaar lay doon. waa di leen ñaanal yàlla man moom loolu rek laa leen di ñaanal ndax sëy yombul dafa metti waaw surtout di sëy koo xam ne tey jii footballeur la yombul lu ne di nga ko dégg mais ñu dañuy sant yàlla rek tey jii hmm. waaw. di leen ñaanal. merci beaucoup. ok sama waay macha allah mu ñëw tamit euh, Marie-Louise aussi nekk suñu sœur ñun ñëpp macha allah ku ko xam-xam ne ne ku ko baax la moo tax nag euh, yàlla dogal seen diggante mu am tey moo tax ñun ñëw teew fii nag ànd ceeg ñoom ci mbégte bi. xam nga man nag sëyaguma moo tax mënaguma cee wax dara <laughs> xamaguma ci dara. mais c'est pas un truc compliqué ah sama xalaat bu gàtt parce que euh, sëy moom bokkul ak euh, ak dara surtout bu fekkee da nga gis ku baax ku ñëw la vraiment pour nga nekk jabaram tu da ngay sacrifier wu en fait xam nga donc sacrifier wu nga toog gérer sa sey mais ni ñi ni nga ko jàppee ne que c'est un peu compliqué non man je trouve pas voilà non je crois pas. en tant que sœur alors bu ma amee conseil ma koy jox mooy que ni na gën a gëm boppam na gën a gëm boppam donc voilà mu jàpp sa yem gumba toxlu ba nga dégg waxu kenn vraiment parce que ku am paa bu comme jëkkër moom macha allah xam nga ne ko am nga jëkkër ju baax parce que yaay Baay Faal la Marie aussi ko xam-xam ne ni que yaay Faal la donc ñoom ñaar mën nañu ànd donc nag vraiment di ko ñaanal rek yàlla barke sëyam bi te lépp lu mu ci séntu rek suñu borom defal ko ko te mu nekk lu gën si moom. na ko gérer parce que baax ban wóoru naa ko mun na gérer day gérer normal. donc xam naa ne bu baax dina téye Marie-Louise comme ni ko war a téye dina ko xoolee bëtu yaay dina ko xoolee bëtu sœur vraiment euh, man wóor naa ko daal te xam naa ne dina téye bu baax. mais comme ni ma ko waxee rek xam nga mariage moom yàlla moo koy dogal bu dogalee dafay am day am bu dogalee da ngeen tàkkalikoo ala kulli a da ngeen tàkkalikoo te vraiment bii moom ñaanal ma ko ko donc euh, en tout cas daal xam naa ne dina gérer seen bi incha allah comme ni mu ko waree yàlla daal gën leen jubóo rek ñu gën a bëggante. ñu am tamit. mu jeex daal man est-ce que lay ma ñaanal. ñaanal leen ma léegi rek incha allah merci beaucoup ma chérie à bientôt incha allah. <laughs>